asalaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni site info 15 émission 15 minutes pour convaincre tey nag émission 15 minutes pour convaincre dañ ciy Abdoulaye Fall membre ci conférence des leaders IDI 2019 nekk tamit ki nga président Sénégal naataange. waaye itam ba tey nekk it koo xamante ni jamono yi nga xamante ni tolloon nañ ci élection présidentielle yi moom moo nekkoon coordinateur comité électoral bu Jidda Caaray Kaw nekkoon aussi vice président coordinateur du département de Pikine ci jamono yi nga xamante ni tolloon nañ ci présidentielle 2019 yi tey nag moom lañu ñu war a àndal ci seen émission 15 minutes pour convaincre ñu war a am tomb yoo xamante ni ci la ñuy waxtaanee lu ci mel ni coow li nga xamante ni moo xew jamono jii nii ki nga xamante ni moom mooy euh, Aliou Sall di rakk ci président Macky Sall démissionné démb euh, beneen bi soob tamit muy dialogue bi nga xamante ni moom la ñu antam ne bëri na ay bruit yoo xamante ni am na ko ki nga xamante ni tamit mooy euh, comme moom it dafa nekk membre ci conférence des leaders IDI 2019 euh, ñu gis tamit idi moom en personne mu xaw a noppi jamono yi nga xamante ni ñi am na plateforme bu ñu créé tuddee ko aar lu ñu bokk am leader yoo xamante ni dañ leen fay gis moom ñu gis ko mu xaw a noppi donc dina dinañu waxtaan ak moom ci point yooyu ci ñetti point yooyu su ko defee moom su ci ñëwee après dina ci gën a détaillé laataa ñuy soobu ci biir waxtaan bi nag dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñiy suivre Info su ko defee ñu soog a dugg ci waxtaan bi Ablaye ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi nga nuyoo ak ñiy suivre Info 15. Euh, jërëjëf. Euh, maa ngi nuyu senegal wërngal képp di ñaan réew ci di jaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak bépp doomu sénégalais ak foo mënti nekk di ko ñaanal aussi waa info 15 yëpp di ñaan ñi nekk ci hôpitaux yi suñu borom fëgg seen bopp delloowaat leen seen biir njaboot ñi nekk ci kaso yi borom bi subhanahu wa taala tek lañ ci yoon siratul mustaqim genn leen fa ba ñu rëcc lañ defoon ba dugg fa ba dootuñ fa dellu waaye kilifa diine ak kilifa aada yi yàlla nam seen xel euh, defar seen taxawaay ba ñu mën ñu dunu tette dunu digal te it ñu amuk dégg akuk topp ñi ngi nuyu ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm waaye di nuyu waa sénégal naataanga yëpp mënuñoo wax nag te duñu nuyu aussi waa Euh, coali la grande coalition bu Idy aussi 2019 di leen di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi nga xam ni amoon nañ ko ci élection yi nga xam te ni mooy élection 2019 bi. naaw bi nga nuyoowee ba noppi euh, dañu gis jamono jii nii am coow lu rëy loo xamante ni moom moo lëmbee suñu réew mi bokk na ci loolu muy pétrole bi. am na benn site boo xamante ni ñoom muy waa BBC am na benn enquête bu ñu def mais depuis ñu def seen enquête ba léegi rek coow li dafa bëri opposition bi aussi gis nañu leen chaque àjjuma bu jot ñoom ñu daja lool sax ci kanam tuuti incha allah daañu si ñëw mais problème boobu noonu nga xamante ni moo am léegi ba ki nga xamante ni moom mooy Aliou Sall démissionné ci CDC bi démb yow ban gis-gis nga am ci côté boobu da jëf ci question bi euh, dama koy rafetlu di wax rek ni suñu gis-gis ci démission bi mooy kan ni théâtre lañ doon def te théâtre boobu sénégalais yi mérité wuñ ko li tax ma théâtre la mise en scène la euh, ndax bu bëggone démissionner mëna na démissionner te dispositif secrétaire bi nekkoon fofu ak nit ñi fa nekk yëpp duñ ko yëg il suffisait tout juste mu bindu ben lettre de démission mu baña a am ben tantamar pour wané ci bëtu nit ñi ak bëtu bitib réew que ni waa géejawaay waaykat am nañ cofeel ci moom montage yooyu nag yaakaar nañ du jàll li tax du jàll mooy alalu réew mi aar ko dafay war aar ko ngir askan wi coono gi ñuy dund bu fekkente ni dañu bàyyi xel tuuti ci ginnaaw li ñu dal ci saba sabadola or bi nga xam te ni suñu yaay yi duñ ko gis gisuñ ci suñu njëriñ ña fa dëkk sax gisuñ ci seen bopp réew mi gisuñ ci seen bopp zircon bi nga xamante ni tey jii Sénégal gis ci seen gisu ci boppam fer bi gisuñ ci suñu bopp loolu li koy indi mooy contrat yoo xamante ni dafa dul dëppoo ak norme yi nga xamante ni norme yu baax la ba askanu Sénégal mën ci gis seen bopp ba tax ma démissionné bi mu démissionné waat du foofu lañ ko doon xaar li tax foofu du tax foofu lañ ko doon xaar mooy dafa am benn kàddu boo xam ni dama koy faral di wax nit ki da koy déglu ak waxam waaye da ngay bàyyi xel ci jëfam bu jëf ji di méngoo ak waxam lépp lum la mënti waxati dafay mais bu fekkente ne wax ji dafay waroo ak i jëfam bu ëllëgee lépp lu mu la mënti wax te dootoo ko mën a gëm nanu fàttaliku tuuti mus naa ci wax bi ñuy nomee Alioune Sall ci caisse de dépôts et de consignation bokk naa ci ñi njëkk yëkkati seen kàddu wax ni nomination bi c'est une de trop ndax magam moo ñu waxoon ni àdduna du dox mukk ba mu jël rakkam ci nomination par décret lepp lu muy am day nek mandat électif kon bu fekkee daf nu wax ba paré wax joji dañ est-ce que tay jii mën nañ ñu waxati dara buñu buñu bu mën ko gëm bi ci dess moy dama wax ni avant ko di wax bind naa ni al Sall et la tache noire de la deuxième alternance c'est la partie visible ce n'est que la partie visible de l'iceberg Qui signe le contrat al signe Sall signé le contrat signe le décret d'abrogation Qui a signé c'est le seul responsable kon mbir dit dafa am te loolu ci laxasu war nañ ko topp ba képp ko xam ni sa loxo dugg na ci wala lal na ci ñu teg la ci yoon ndax xalifa sàll Karim Wade Alioune Sall gënu leen waaye waat bi mu waatit dafa am leneen lu muy wane waaw effectivement sax foofu lañ bëgg parce que dañu gis kamil ak ni toll yaakaar naa képp koo xamante jël nga kamil di ci wax rek am na yow foo xamante ni dem nga ba toll fa ñi gis ko démb mu jël kaamil teg ci loxo bi waat ni moom li nga xamante ni moom la ñuy wax ni Frank Timis jox na ko ko loolu amul est-ce que tamit du loo xamante ni kon mën nañ ko nangu que ni moom li mu wax noonu am na maanaam Frank Timis jotul am benn xaalis boo xamante ni jot na ko ko verse fi ma njëkk wax mooy kaamil bi am na kaamil dafa am solo ci ñun jullit waaye gis nañ fi benn président bu benn réew. bo xamanteni foko fekkon da yor chapelet yor kamil te mënon def ñaawteef jàng nag ko won ci amul ben ñaawteef bu mu deful lo xamanteni lepp lu l'islam di bañ def na te foo ko fekkee mu ngi bi lamu wat ak lañ ko tumal est-ce que bokk na nax sénégalais yi si su fekkente ni yaakaar nañu mën nañ caresser l'esprit des sénégalais il se trompe lourdement. il y a un taux de chômage chronique ki règne en maître nit ñi dañuy feebar bëgg a faju mu tëleen pauvreté bi di gën a yokk ñu am benn richesse naturelle buy ball waroon na siggil réew mi wala siggil doomu réew mi doomi réew mi gis ci seen bopp tey rafetul ñu gis benn famille ñu téye lu mel noonu di foye askan bi ñu gis nag benn mbir ci démission boobu procureur bi génn def conférence de presse ma ni loolu ñuy laaj nit ñi ku am ay éléments de preuve nga dem yóbbu ko kii dañ ko tuumaal effectivement sax foofu lañu bëggoon a ñëw parce que procureur bi ginnaaw bi nga xamante ni wax ji bëri na Euh, génn na def déclaration nee na képp koo xamante ne am nga loo xamante ne moom ngay indi na nga ñëw dikk nga yóbbu ko fa est-ce que tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee ci opposition bi ku ci mel ni Abdoul mbay Thierno Alassane Sall ñoom aussi li nga xamante ni moom lañuy wax est-ce que tamit jaaduwul ñoom ñi dem yóbbu preuve yi nga xamante ni moom la ñu am que ñuy nekk di wax ñoom aussi. gis nga am na loo xam te ni dañ ko war a éviter baaxul ci réew. ndax bu fekkente ni dañu tuumaal rakku président ba pare génne ay preuve yu weer yu wér péng nit ñi du ko def ci net bi ñu war a dem toppi topp ko moom ñuy wëlbati ko wax naan rapport bi nu mu def ba am fuite loolu yaakaar naa ay caaxaan la tey Karim Wade bi ñu ko tuumaalee ci CREI yi dañ ko wax ni na indi ay preuve am man dama jàppoon bu Aliou sàll démissionné rek dañ koy woolu mën mener une enquête def comme ni ñu def ak ñi nga xam te ni nekkoon nañ fi ku mel ni Karim Wade ku mel ni xalifa Sall teg mbir mi ci yoon ba pare justice def yoon au moins sax sénégalais yi am benn assurance que ni nous avons une justice libre et indépendante. foofu aussi dégg nañu tamit keroog ci Ousmane Sonko discours bi nga xamante ni def na ko mu ne ñoom fës nañ yéen a dem ci niveau international ñu topp ko xeex bi parce que ñoom yaakaaruñu ci justice Sénégal bi mais aussi est-ce que tamit am ngeen yaakaar ni que ni même sur le plan international mën ngeen a am foofu ndam ci kaw ki nga xamante ni moom mooy Aliou Sall. non ndam li am na ba pare parce que le fait mu démissionner ben paa la panique am na ci ñom ben paa la te comme birum corruption la na la wor ni kuréel yi nga xam te ay bitim rew lañu nek dañuy top mbir mi donc ñu nit opposition bi dinañ top juridiction internationale yi ba am ci gain cause te am nañ ci yaakaar ni ci am gain cause parce que li tax Aliou Sall nam mu dafa waxoon day porter plainte BBC la moo tax porté wul plainte. mu jeun nako def mais dafa mujj après mu retirer wat li nga xamanteni mom moy plainte. mani su fekke dañ lay tuumaal nga ni da ngay def sa di da ngay def nga xamanteni sen sen cadre kaddu sax dootul crédible bo dem ba yow bo waxe li ngay wax toujours da nga koy dindi est-ce que yow nit ñi. boo waxatee sax ba jël kaamil di ci waat dinañ la gëm Alioune wax na tey jii jox na dëgg opposition bi ndax moom moo waxoon dem bu démissionné day jox dëgg ay adversaire am xanaa bu fekkente ni décret présidentiel jële na ko fa ci lay doog a démissionné. maaleykum mbokki internautes yi yeen ñi nga xamanteni yeen yéen a ñuy top ci seen site info 15com tay nak ñu ngi am mbecté contenté di délissuat ak yeen ba tay ci seen émission 15 minutes pour convaincre tay nak seen émission 15 minutes pour convaincre dañ ciy ànd ak ki nga xamante mom moy Abdoulaye Fall nek membre ci conférence des leaders IDI 2019 nek tamit ki nga xamante mom moy président Sénégal Natangé waaye itam ba tey nekk it koo xamante jamono yi nga xamante ni nañ ci élection présidentielle yi mom mo nekkoon coordinateur comité électoral bu Jidda Caaray Kaw nekkoon aussi vice-président coordinateur di département de Pikine ci jamono yi nga xamante ni tolloon nañ ci présidentielle 2019 yi tey nag moom la ñu war a àndal ci seen émission 15 minutes pour convaincre ñu war a am tomb yoo xamante ni ci la ñuy waxtaanee lu ci mel ni coow li nga xamante ni moo xew jamono jii nii ki nga xamante ni moom mooy euh, Aliou Sall di rakk ci président Macky Sall démissionné démb Euh, beneen bi soob tamit muy jaloog bi nga xamante ni moom la ñu antam ne bëri na ay bruit yoo xamante ni am na ko ki nga xamante ni tamit mooy euh, comme moom it dafa nekk membre ci conférence des leaders IDI 2019 euh, ñu gis tamit IDI moom en personne mu xaw a noppi jamono yi nga xamante ni ñi am na plateforme bu ñu créé tuddee ko aar lu ñu bokk am leader yoo xamante ni dañ leen fay gis moom ñu gis ko mu xaw a noppi donc dinañu waxtaan ak moom ci point yooyu ci ñetti point yooyu su ko defee moom su ci ñëwee après dina ci gën a détaillé laataa ñuy soobu ci biir waxtaan bi nag dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñiy suivre info su ko defee ñu soog a dugg ci waxtaan bi Ablaye ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi nga nuyoo ak ñiy suivre info euh, jërëjëf euh, maa ngi nuyu Sénégal wërngal képp di ñaan réew di jaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi. ak bépp doomu sénégalais ak foo mënti nekk di ko ñaanal aussi waa info 15 yëpp di ñaan ñi nekk ci hôpitaux yi suñu borom fëgg seen bopp delloowaat leen seen biir njaboot ñi nekk ci kaso yi borom bi subhaanahu wa taala teg leen ci yoon siraatul mustaqim génn leen fa ba ñu rëccu lañ defoon ba dugg fa ba dootuñ fa dellu waaye kilifa diine ak kilifa aada yi yàlla nam seen xel. ndaw ñi nga xam te ni ñu ngi ci réew mi amuñu bërëb bu ñu lu ñu liggéey. mën am loo xamante au moins dañ ko liggéey. ñuy fàttali ba tay ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo ñuy top ci info 15com ñi ngi ak yeen ba légui ci seen émission 15 minutes pour convaincre ñu ci and ak ki nga xamanteni mom moy mooy Abdoulaye Fall nek président mouvement natangé est-ce que gisoo ni que ni tamit jot na ngeen tok waxtan pour li nga xamanteni mom moy intérêt réew bi euh jërëjëf xam nga dama def euh, wax naa ko ci plateau yu bari damay bañ a tudd ci plateau yi.

ci fichier électoral bi ak carte électorale bi ñun ñëpp bokk nañ ŋàññu ko ci élection yi ñu wees te xam nañ ni buñ ci continuer waatee demaat ci élection loolu day ñoom fa ñu jaaroon rek la ñuy jaaraat ba amaat ndam donc lu ñu war a saytu la lu ñu war a xoolaat la waaye dialogue bi du euh, du euh, contentieux électoral bi rek lépp réew mi ci la ñu war a waxtaane jafe-jafe réew mi ak nan lañu mëna fexé ba apporter des remèdes face au maux dont souffre ce pays te tey jii bokk na ci pétrole bi fiñ ñu toll opposition bi ñom ñep guddi yi ñu toll dañu war a sursoir dialogue bi ba ñu lijjanti lii mu leer nañ ñu tok autour d'une table waxtaan xol dañu yëkkatee réew mi ndax nag ñoo ko bokk te benn bopp rek kenn mënu ko xar ñaar. waa ci foofu sax dañu gis ni que ni opposition bi à chaque fois saa bu ñu waxee dialogue ñoom dinañ dem début bi dinañ dem mais bu ñu demee ba si biir ñoom dañuy mujj gedd cette fois ci nag ñu teg 9 points ñu ni 8 points yi jot nañ si dëppoo mu des benn bi ñoom jël nañu yoon buy wane ni que ni pare nañ pour dialogue mais est-ce que tamit du mel comme yi daan passé est-ce que du dem ba si biir ñu mujj geddaat encore. non xam nga du gedd nga euh, dialogue bu franc surtout nag mu nekk loo xam te ni international réew mi la yaakaar naa képp ko xam te ni patriote nga képp ko xam ni bëgg nga réew mi jëm kanam di nga jóg toog waxtaan ngir ñu saafara góom bi mais dafa am loo xam ni dafa am dañuy gis ni dialogue bi toujours dafay lal ay naxaate dégg nañ sax président am ay kàddu yu mu wax muni mo amatul ben ange ba tax mu wara def njuj njaaj donc ne opposition bi ñew ñu tok waxtaan kon manam bu fekke dafa am ange yi taxaw ci kanamam ci sama jangat bu gàtt kon ñom def lu leen neex bu boobaa day yomb bu fekke ange amul bu baba dialogue bu sincère mën na am dama japp nak dialogue pour réew mi comme ñoko bok dafa wara a sincère bu sincère rek di nga gis opposition bi ñëw bokk ci parce que nag nous devons avoir une opposition constructive une opposition constructive nous renvoie sur l'image que ni bu président defee loo xam te ni lu rafet la ñun ñëpp ñu bokk ndoo tàcc ko ba pare encouragé ko te xam ni réew mi moo ci jëriñu bu fekkente ni seen président de la république wala équipe am def na loo xam te lu mucc ayib la ñu takku taxaw sol suñu dàll takk suñu tubéy jàmbarloo ak moom te xam ne nag réew mi moo ñu ko jaral réew mi moo ñu ñor te réew mi bu doxee ëllëg suñu doom yi kat dañ ci gis seen bopp même ñun bu fekkente ni sax wuñ ko kon xeex bu ñuy xeex nii xeex bu noble la dialogue c'est important waaye opposition bi aussi taxawaay bi ñuy taxaw taxawaay bu mucc ayib la parce que naxaate bi dafa doy nit ki dafa war di wax toujours loo xam te ni au moins su ko waxee ak ay nawlem

Euh, ki nga xamanteni mom moy mooy Diaz dégg nañ ko ci point de presse bi mu mujjé won def mu am lu mu wax lancé ko ñi nga xamanteni ñom ñoy opposition bi donte ni jotul tuddu tour sax mais ñi fété ci IDI 2019 ñom dañu génné ben communiqué pour répondre ki nga xamanteni mom moy mooy Diaz euh, silence bobu nonu nga xamanteni amna yow aussi ban jangat nga ñi ci indil. fofu damay indi d'abord ben benn éclaircissement pour rectifier la touti que ni du ñu nek ci IDI 2019 ñoo génn def ben réplique amana waa réew mi te parti bu nek am nga sa agenda politique il faut que joko ñu respectante ndax waxtu wi ñu toll nii du waxtu xulo ci opposition bi du waxtu sànnantey track waxtu bi ñu toll waxtu euh, mobiliser nos forces pour faire face à ce régime bu ñëwaat wax ni euh, ñun opposition bi dañu wara a doon say pour xeex ànd ak askan bi du xeexu politique xeexu askan bi la ñu ñëpp ñu ànd doon benn say ngir xeex li nga xam ni ñu ñëpp ñoo ko bokk waaye nag nanu moytu sànnante traque bi amul lu muy indil opposition bi day affaiblir suñuy force rek te danoo war a ànd xeex ce régime là mais xeex bi nag mu tegu ci ay normes yu légal euh, parti bu nek da nga am sa agenda politique Barthélemy mi un parti socialiste euh, ak Khalifa ñom dañu am sen agenda politique Idrissa am agenda politique duma ci dugg duma ci wax lu sori xuus ci parce que am na question yoo xam te ni xëy na Idrissa wala waa parti réew mi ñoom rek ñoo mën a joxe euh, seen réponse ci question boobu waaye damay def un appel rek à toute l'opposition que ni l'heure n'est pas à la division l'unité de la famille ne doit pas se relater en morceaux li ñu soxla aujourd'hui moi, fédérer nos forces pour abroger la souffrance des Sénégalais fédérer nos forces pour que la vérité soit rétablie fédérer nos forces pour que askan bi coono bii ñu nekk ñu ci donc may wax rek ni Barthélemy Idrissa magam Idrissa wax ji mën naa ñàkk ku nekk na respecté moromam xëy na kële moo xam lu tax mais kii nu di que ni même bu waxul am na ñoo xam te ni ñu ngi ci réew ñoo xam ni ñu ngi dem di def di bokk ci manifestation yi donc dañuy éviter coow li coow loo xam te ni benn coow rek moo war a am mooy nañu leeral lii nga xam te ni mooy suñu pétrole ak suñu gaz bi. loolu daal laa xamante ni bëggoon naa ko ci wax ci ñoom ñaar dañoo xam ne rek euh, ñoo bokk lépp ñu bokk fu ñu jëm nag yan ko taxut dem dañu yëgu. mu mel ni yëgsi nañ fi nga xamante ni fa la ñu war a yëkkatee li nga xamante ni moom mooy émission bi ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi ñuy suivre ci info 15 point com. Euh, jërëjëf may nuyuwaat waa info 15 yëpp du nuyu waa Sénégal naataange du nuyu aussi képp koo xamante ni rek bokkoon nga ci. Idy 2019 di nuyu askan bi yëpp di ñaan jàmm ci réew mi di wax nag kàddu yi ma yëkkati bu fekkente ni am na loo xam te ni daf ci ñagas jubluwuma ci loolu bu fekkente ni e, am na ay erreurs ci nekk nanu xam ni nit moo matul lépp lu ci rafet nag nanu xam ne suñu borom la lépp lu ci ñaaw wala nit ki dégg ko neneen nu ma ko waxee nan xam ni nit moo matul waaye gis-gis bi na ci man nekk ci sama xol moom laay génne te mu dëggu ci man kon maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di la ko ñaanal aussi di rafetlu vraiment euh, ni ngeen ma choisir pour ñëw waxtaan ak man waxtaan bi nag yàlla na am njeexital gu rafet goo xam te ni rek nit ñi dañ ko dégg jële ci njëriñ loo xam te ni njëriñ ju mucc ayib lay doon yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci seen émission 15 minutes pour convaincre tey nag ñu ngi doon ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Fall nekk président Sénégal naataange moom lañ doon àndal ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ñi leen di jox dig daje beneen yoon ak beneen invité incha allah.